Euh, Mouhamadou Lamine Sow Mouhamadou Lamine Sow boo di membre ci association Hikma euh, féete xëy na itam ci wàllu formation association Hikma association la boo xam ne euh, daf dañu ko taxawal ngir liggéeyal ci lislaam mu nekk association boo xam ne sëñ Xaadim moo ko jiite waaye itam euh, ñi ci nekk ñëpp nekk ñoo xam ne euh, dañuy yëngu ci xam-xam ak diine nekk daal nit ñoo xam ne kenn du leen xebat ci dara ndax bala ngay yéwénal ñaare da ngay war a yéwen ba noppi muy association boo xam ne euh, ñu ngi ko taxawal daanaka 2009 muy yëngu ci domaine yu wuute waaye ñu mën koo tënk ci loo xam ne daal dafay taxawu nit ñi di leen dimbale te di xeex ñàkk. Euh, loolu moo tax association Hikma euh, domaine yi nga xam ne daf ci yëngatu euh, yu wute la waaye yi ci gën a fés benn mooy lu mel ne azaka nga xam ne ponk la ci ponk lislaam yi yàlla fonk ko lool ba nga xam ne dafa wax yonent bi sallallahu alayhi sax ne ko jëlal ci seen alal euh, sarax muy azaka boobu nga xam ne du lu nit ki sax di joxe ci coobarew waaye obligation la euh, kon azaka ma def ci yëngu ni ci yëngu itam euh, dafa dafa bëgg a gën a rationaliser gën a amal njëriñ azaka ndax xam nañ ne boo génnee azaka lu baree bari tas ko ku ne nga jox ko lu ma dépense bisit naam dina baax waaye tamit am na anam goo ko mën a génnee fekk nit ki bëgg liggéey mooyam demeewul noonu nga dimbale ko mu liggéey euh, wala nga taxaw koo xam ne liggéeyam xaw na sooxe bu yàggee kooku mën naa génn ci ñi war a jël azaka bokk ci ñiy joxe azaka moo tax association Hikma def na ci jéego yi am solo ba nga xam ne sax am na ñoo xam ne jaar nañ ci moom ba tey euh, ñi ngi sant yàlla bu baax wala mën nañoo bokk ci ñiy génnee azaka kon azaka dina ci yëngu ci domaine boobu mu bokk ci domaine yi ba tey lu wax fu nga xam ne ci ci concept l'islam yi la bokk mooy lan mooy nga nga fexe amal samp loo xam ne eh, dafay génnee njëriñ njëriñ li nag bu génnee eh, da ngay wax ne def naa ko ci yoonu yàlla nga xam ne même bu ma fi jóge woon loolu day wéy comme nga nga defar école ne kon def naa ko ci yoonu yàlla wala wala wala nga defar ab tabax ne lépp lu ci jóge def naa ko ci yoonu yàlla ak yu noonu kon waqf itam mbokk ci li nga xam ne xikma daf ci yëngatu bokk na ci eh, lu mel ni miiras nga xam ne moom it lu am solo la yam saa salaam li waxoon ne yàlla day bàyyeewul séddale miiras bàyyeewu ko yonent bu mu yónni bàyyeewu ko malaayka bu ko jege waaye moo ko séddaleel boppam inna allaha lam yëkkil xismata mawarisikum li malakin muqarrab wala li nabiyin mursal walakin tawalla xismatahu bi si Euh, looloo tax xëy na du fi xaj waaye suuratu nisa hmm? bis bi at bu at bu at bu nekk bis bi mbaam euh, dañ koy taxawal daanaka mën nañ ne wax at at bu nekk wala xëy na bu baree bari bu baree ba bari ñaar ñaari at yu nekk euh, muy loo xam ne xëy na ni ñu ko waxee bis la boo xam ne comme li ñu doon wax ci azaka yi ak yeneen ci lañ koy jëmmal di ci jëmmal séddale bi niki itam Euh, lu mel ne bokk na ci muy yëngatu moom association Hikma eh, yéwénal diggante islaahu zaatil bayn mooy fexe fekk diggante bu am jafe-jafe nga fexe ba rattaxal moo xam ñaari nit la wala ñaari kuréel wala yu mel noonu ngir tënk rek itam bokk na ci xëy na formation wala nga xam ne domaine yooyu ñu wax fexe ba nit ñi xam ci dara nit ñi xam ci dara euh, moo xam da leen di sensibiliser taxawu leen ba lañ ca war a xam ñu xam ko ci baax na